asalaamaaleykum mbokku internet ñi nga xam ne ñu ngi seetaan fii ci àdduna bi ñu ne waa inna lillahi inna ilayhi raaji'uun nee ñu bakkan bu ñam dund nga ñam de ñu ngi toog ak waajur bu jigéen ki nga xamante ni mooy Adama Diop moom la xamante ni tey miir bi ah, faat ñu ngi ñëw tey si waxtaan bi nga xamante ni tey mooy waajuram boobu yaay booy ñu ngi leen nuyu di la jàlle ki nga xamante ni tey ah, mooy Adama Diop. Adama moom. li ma laaj na mu demee dañ naa Adama Diop dafa ñëw génn si bitti ba mu génn si bitti muul bi birig kii bi fàq miir bi fàq dal si kawam état bi muy deewoo wooy ma sama kër rek ma yem si muy dee loolu laa si am ñëw rek ñu ne ma sa doom dee metti loolu waaye lépp nag bàyyi naa ko si loxo yàlla mm-hmm. maa ngi koy muñ yàlla suñu borom li ma ko joxoon moo ko nangu mën loo yàlla suñu borom moo ko jox adama yaru na baax na bëgg na ay mbokkam bëgg na ay mbokki jëkkëram mbokk bëgg na ay dëkkaaleen baax daal lañ ko xamee nit ku baax daal lañ ko xamee lañ ko xamee nit ku baax lañ ko xamee wax yàlla man li ko jur man xam naa ne ku baax mbokk jàmbur gi daf xam ku baax la ndax boo juree sa doom ah ñëpp naan baax na baax na baax na rek nga ndax man tu ma nee baax na tey te ay ñi mu dëkkal ni mu ñu baax na ñeneen ñi ni mu ñu baax na du am njëriñ waaye nag ñu ngi sukkandiku si nit ñi ni baax na si lañu sukkandiku situation bi ni mu mel bi ko jë borom këram yégee nan la ko dundee metti lool man man mi ko jur xam ñoom ñaar xam naa ni metti na man xam naa loolu borom këram moom lu mu métti métti xam naa ni moom tam métti na ko man mi ko jur lu mu métti te xam naa ni borom kër mooy raw man xam naa loolu man waaw te xam naa ni am na ñi leen xam dëgg-dëgg tam ñoom xam nañ ne loolu dina dina ko métti xam nañ loolu bu baax. yoroon euh, tout tànk tout tànk mu ngi si ñaata tànk bi at ak genn waare nga xamante ne tey euh, loolu am na tey euh, sàppóor ba ñëwee ban constat def wala yu yi ndax gaaw na ñëw. man nag loolu fekkuma fi man damay dañ ma woo sama kër rek ma ñëw rek ñu ne ma. fekk naa ñu yóbbu ko ma ñëw rek ñu ne ma fekk dee na bi ma ko demee léegi bi ñu koy sang laa dem xool ko sa marko la waaye man démb moom bi ñu koy yóbbu man fekk ma fa sax ndax bokkuñu kër moom dafa sëy si man ma nekk sama kër doom ji nga xamante ne tey moom la Adama yoroon tey xale bi xale bi moom ma nga fee dañ ko dañ koy dem seet yaram beeg nu mu mel daal ba xam xam nga comme que yaay ma nga ko yoroon affaire bi dal leen ah il ñu seet yaram xale bi ba xam fu mu toll loolu rek la. mais ba suñu mu ngi tane. tane na bu baax. te wax li nga xamante ne mooy mbokki jëkkëru aadama sant leen rek ndax man mi aw ma dara lu ma leen di nemmee ko si ñoom ndax nag sëy na si ay biir mbokkam te ñu téye ko tamit. jëkkëram téye ko ndax ndaxte mbokk gi mooy jiitu sëy bi te ñoom tam dañ ko téye téye ni ñu ko war a mën naa toog lu yàgg ay mbokk lañu ñun ñëpp waaw ñii fii mu sëy si ne ay nijaayam lañu. ay nijaayam ay yaayam la nekkal ñu téye ko bu baax nag aw ma dara lu may naqari si moom xanaa bisu tey bisu tey daal te yàlla kenn teguma ko nag yàlla suñu borom rek moo ma ko teg moom rek moo ko teg moom mi ko joxoon moo hmm? mooy sama caat. waaw ay mag rek la hmm? man Fatou Gueye waaw. ñu ngi lay jaay jëf di ko jàlle yàlla ko suñu bon teer fa si àjjana fi def si yàlla ko continuer ndaw